Marouf di arbitre bi nga xam ne moo doon arbitre match Sénégal ak kii li nga xam ni moo nekk Sénégal porte nañ ko plainte lu tax plainte ba lu ko waral Sadio Mané ngi ci biir bëgg nañ leen ko tipparñil benn par benn ngeen xam moom gone gi lu tax gaa ñu yóbbu ko ci football Afrique fa nga xam ne atteka mag ci àdduna wala ngal kàpp fa la ne euh, wala boog ci Afrique gi yëpp fa la ne loolee danañ ko topp benn par benn bu ko defee ngeen xam ni xew Aladji Malick Sarr sponsor bu mag bi fii ci Aladji Malick TV ñu ñaanal ko jàmm diglu yëgle bi bu ñëwee am na yeneen si toftalandi ñu ñu diglu yëglu bi te dellusiwaat léegi léegi. conteneur ba wàccaat na fële ca alaaji Malick Sarr doomu ndeyu loo ginnaaw bu ngeen ripañee li nga xam ne mooy conteneur yi mu yoroon ci wàllu mooy gars yi lépp falaxa ngeen ko ndax njaay mu yomb njaay mu original mi nga xam ne gonek Barcelone gi moom lay jaay ci wàllu mooy gars yi en groupe ba lépp lu ngeen ca bëgg ci image yi ngeen di gis maa nga noonee conteneur bu yes peq ginnaaw bu ngeen falaxee bi fi nekkoon alaaji Malick Sarr kontaan na ci loolee nga xam ne def ko waaye nag nee na leen du ngeen ko gën a gore ndax wutiwaat na yeneen conteneur yoo xam ne mooy yes la mooy original am nan Barcelone am Atlético am lii di Real Madrid uh, ba ci Paris Saint-Germain Milan Manchester uh, United Manchester uh, City ba ci Arsenal Atlético Madrid fépp foo xam ne bëgg ngeen fa ci wàll mooy bu ngeen wootee ci numéro bii di affiché di 76 907 71 80 Malick danañ ko livré bu leen neexee ngeen dem ba ci Sandaga ko defee ngeen dem ba àgg ci moom def seen i commande commande yu mucc ayib yoo xam ne daanaka da leen koy livré en temps bu la neexee nga toog fi nga ne bañ a bougé woote dugalal daal di lay dugalal say ci yow moom Malick Sarr moo leen ma nga noonee Sadio Mané euh, ma fuus ni dang nag numéro 10 bi gars yi explication yu leer laa leen di andil lu tax fédération Burundi maanaam taxaw nag yóbbu aw kayit wu weex tàll wuñ mbind bind mu ñuul euh, signé ko brandir ko diwaane ni ñoom kat danoo amuk jaaxle ci pelanti ba nga xam ne saajo maane am na ko fédération Burundi bu football mu nekk FFB maanaam xamle na ne déposé nañ ab plainte euh, ci l'arbitre égyptien bi nga xam ne moo nekk Mohamed euh, Marouf nga xam ne El Mansour euh, suite ci cinquante sixième loolee bu yenoo maanoo man bu yenoo maana man ngeen ma ko wax ci commentaire yi waaye li leer boobu Sénégal doon football ak Burundi moo nekk cinquante sixième match ci li nga xam ne moo nekk foofee mbir mi tolloon éliminatoire CAN deux mille vingt cinq fële ca stade national bu Lilowongue Bingé loolee am solo bu baax a baax penalty bi waral coow li nag moom laa leen di bëgg a dikkal penalty boobu mooy Sadio Mané ñoom li ñuy réclamer mooy penalty amul benn di objectif boo xam ne ñoom teg nañ ko ci taabal ji. beneen bi ñoom li gis ci ay vidéo jàpp ko ñoom ñi nekkoon ci terrain bi mooy Sadio Mané daanuwul ci biir surface préparation maanaam action bi fa mu amee Sadio Mané fan ko blessé loolee soree naag penalty ñu naqarlu ko bu baax a baax yoon nag may leen ñu dugal aw kayit boo xam ne yaakaar naa ne fi mu toll nii dañuy contesté kayit woowee nag jàll na fi mu toll nii yaakaar naa ne match ba tas na réponse yi moo des ci gone yi yi jiite football Afrique. football Afrique moom ku ko xool gis ni dafa dellu ginnaaw bu baax a baax loolee amul euh, benn werante. Mouhamadou Salah moom andi woon naa fi information ni moom gone égyptien gi contrat am ak euh, Liverpool day jeex ci at mi ñu jëm wala boo kese sama bi bu jeexee tey it moom renouvelé waatul ab contrat maanaam defalatul ngir yokk contrat am ak gone égypte yi kon lenn ak euh, yi nga xam ne ñooy gone Liverpool yi kon lenn moo am day bàyyi euh, lambi faneen lambi faneen googee nag Paris Saint-Germain taxaw na bu Nasser Al Khelaïfi pôle position pour bëgg a andi moom mii di égyptien bi mu ñëw footballal leen leen foofee ca Paris Saint-Germain gone Qatar yi loolee danañ ko bëgg bu baax a baax Mohamed Salah nag xam ngeen ni Euh, moom compère la woon ak maane Mané fële ci pour jàmbaar la mën naa football teg na ci temps ak heure gars yi kii nag bëgg ngeen jàpp ci bu baax a baax maanaam jox ma ci moom ay baax bu leen a sax ngeen mayal ma koy kër gis neen ni moom kat football kat la boo xam ni moom Alaaji Papa Gueye jàmbaar dëgg la ndax la mu def ci match sub Sénégal Burundi ba tey jii ma ngi fay tegee maanaam ba ko yi dugalee la wane ni moom mi militaire bi bariwul kum koy xëccool jàmbaar dëgg la ci li nga xam ni daanaka muy boobee match